audu billah bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mbokk yi ñuy bàyyi xel ci seen chaîne youtube yaatal xeltu yin asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi nga am di ñëw ak yéen ci seen jotaayu wala fal fiqh muy àttey fiq yi moom lañuy ñuy jéem a jël di ko wax ci kàllaamay wolof ngir nit ñi mën koo dégg déggin bu yomb mbokk yi tey ñi ngi ñëw ci laab mooy lan ak euh, nan lañuy xàmmee ndox mi mën a laabal ak euh, ndox mi mënul laabal mbokk laab ñaari façon la bu njëkk bi mooy laab ci sobe bu ñaareel bi mooy laab ci am toj mbokk yi laab ci sobe mooy lan mooy bu dee yére yi nga sol wala saw yaram wala bërëb bi ngay bëgg a jullee daa taq sobe dindi googu ngay dindi sobe bi ci ndox loolu la ñuy tuddee laab ci e, sobe ñaareelu laab bi mooy laab ci am toj bu ngeen déggee baatu toj bi rekk dana leen junju la muy tekki ndax xam nga ne nit ki su jëfandikoo ndox ba jàpp bañ ne am na njàpp mu sell wala mu sangu farata bañ ne am na sangu farata bu sell njàpp moomee ak sangu farata boobee am na yoo xam ne su xewee njàpp ma day toj wala sangu farata ba day toj léegi nag kon képp koo xam ne danga amee am toj bu dee toj mu mag la xam nga dañ laa sant nga dem sangu ji farata su boobaa sangu farata googi li nga cee jublu mooy danga nga cee jublu laab ci am toj bu dee toj mu ndaw la ñu ne la demal jàpp ji euh, jàpp googee da nga cee jublu laab ci am toj ndax kat toj mooy loo xam ne su amee dañ lay tere jaamu yàlla yu mel ni julli wala lu mel ni laal kaamil wala lu mel ni ki wër kaaba géeg yu mel noonu boo defee nag loolu ñu lay tere nag laab gi ngay laab ngir tere ga dañ ngir ñu autoriser la ñu permettre la nga ngay defaat lañ la doon tere laab googu la tuddee laab ci am toj kon ñaari xeetu laab yi moo am laab ci sobe mooy maanaam sobe bu taq sa yére wala sa yaram wala bërëb bi ngay bëgg a jullee nga koy dindi dindi googu laab ci sobe lañ koy tuddee ñaareel bi mooy laab ci am toj mooy nit ki su fekkee dafa def luy waral jàpp muy toj mu ndaw na dem jàpp ji bu dee nag dafa def luy waral sangu farata lu mel ne kii mu sëy walla mu génne mànni yu toj yu mag yooyu mu dem sangu ji farata jàpp boobu muy jàpp wala sangu farata boobu muy sangu farata jàpp gi ci toj mu ndaw mi nga xam ne xëy na ay ngelawal ak dem àll ak tuur ndox yooyu ñooy toj yu ndaw yi ñooy waral jàpp waaye nag sëy wala génn mànn yoog yooyu ñooy waral sangu farata ndax yooyu ay toj mu mag lañu toj yu mag lañu jàpp boobu ngay jàpp ci toj mu ndaw mi wala sangu farata boobu ngay sangu farata ci toj mu mag mi euh, dalay may nga def luñ la doon tere léegi nag euh, ñaari laab yooyu muy sobe taq nit ki mu koy raxas wala nit ki tojle toj mu ndaw war a jàpp wala toj mu mag war a sangu ji farata loola day du ndox moo jot rekk mu man ko waaye faaw day nekk ndox mu laab te mën laabal muy almaa ut tahuur comme ni ko yàlla waxe ni wa anzalna min assamaa'i maa'an tahuura tahuur bokkut ak taahir maa'un taahir mooy ndox mi laab na moom ci boppam waaye nag munta laabal mais bu dee tahuur nag mooy laab na mën a laabal ndax du ku jàng ku ne mën a jàngale nit mën naa jàng ba fees lool ci xam-xam waaye du am pédagogie bu mu mën a jàngalee njàngale mu leer waaye ki jàng ba noppi nag fees dell ci xam-xam xam yoonu jàngale kooku daa jàng di jàngale daa jàng mën a jàngale maa um taxuur nag mooy ndox mu laab te mën laabal mbokk yi ndox mu laab te mën laabal ñett yi benn ko ci xàmmee muy bët walla bakkan wala gémmiñ ndax ndox mu laab te mën a laabal mooy ndox moo xam ne ndox mu pur la ndox bu naturel la moo xam ndoxu géej la moo xam ndoxu dex la moo xam ndoxu teen la ba ci ndox yi di bàyyikoo ci forage yi faw da utilise sa bët xool ba gis ne caf ko ga ko yàlla binde baneen caf ko raxu ci wala nga fóon ko ci sa bakkan ba xam ne xet gi ko yàlla binde rekk la taqool baneen xet raxu ci wala nga ñam ko ci sa gémmiñ wala sa làmmiñ ba xam ne caf ko gi ko yàlla binde rekk moo nekk ci moom waaye ganeen caf ka ganewu ci wala raxu ci kon mbokk yi ndox mu laab tamana laabal daal couleur ba goût ba odeur ba dara du ca changer waaye day nekk lu naturel mel na ko yàlla bindewoon moo xam nag ndoxu géej la mën na laab te laabal bu fekkee lu bokkute géej raxu ca ba soppi cafka ga wala xet ga wala couleur ga niki noonu ndoxu teen niki noonu ndoxu dex niki noonu ndoxu taw wala ndoxu forage yi mbokk yi nag kon léegi bépp ndox boo xam ne ndox bu pur la ndox bu naturel la na ko yàlla bind la mel rek laab na mën laabal mu des nag ndox bi nga xam ne couleur bi wala cafka bi wala xeet bi dafa changé su boobaa bala ñoo àttee ci ndox mi di wax ne laab na walla laabul wala mën na laabal wala munta laabal faw xool li soppi ndox mi lan la su fekkee li ko soppi day lu laab la te wax dëgg yàlla càgganteeg doomu aadama rekk moo tax mu dugg ca ndox ma lu mel ni ki diwlin lu mel ni ki parfum lu mel ni ki pat lu mel ni ki saabu xam ngeen ne doo gis benn ndox boo xam ne fa mu cosaanoo fa la ko diwlin toppe wala pétrole walla saabu waaye yii ma tudd saa yu duggee ci ndox rek càgganteeg doomu aadama moo koy waral kon lépp loo xam ne dafa taqook ndox rek dafa soppi couleuru ndax wala cef ko wala xet te càgganteeg doomu aadama waral ko su boobaa ndox moomu dey laab na ci boppam mën nañ koo jëfandikoo ci naan boo ko seexluwul mën nañ koo jëfandikoo ci sangu set wala ci togg waaye mënuñu koo jëfandikoo ci jàpp walla sangu farata wala dindi sobe bu dee nag euh, li soppi ndox mi euh, moom ndox mi ñoo bokk fuñ jóge maanaam dafa toppe ndox mi ca fa muy bàyyi koo lu mel ni ki ndoxu dex xorom soosu muy saf kenn munta bari pexe ba tàqale ndoxum dex ak xorom ndax fa muy jógee la ko toppe wala ndoxu teen bi nga xam ne Euh, ban ba dafa soppi couleur ba wax dëgg yàlla kenn mënu koo tàqaleeg ban ba wala ndox boo xam ne day kuule di daw te fa muy jaar am yoonu benn miin miin ba xëy na di ca yëbbu di soppi caf ko ga wala xet ga wala couleur ba ñu ne dëgg-dëgg yooyu kenn munta bari pexe ba tàqali ko ndox ma su boobaa kon ndox ma lu laab la mën nañ cee naan ci ko ko seexluwul mën nañ cee sangu mën nañ cee fóot mën nañ cee jàpp mën nañ cee sangu farata mën nañ cee dindi sobe bu dee nag ndox mi li ko soppi lu sobe la lu mel ni kii ndox mi nga xam ne dañ ca tuur ndox maanaam ndox mi nga xam ne dañ koo natt rek ba mu yem ci jàpp wala ñu natt ko rek ba mu yem ci sangu farata couleur ba soppiku wala caf ko ga wala xet ga te li ko waral mooy lu sobe ay tuur ndox walla ginnaaw kër wala yu mel noonu su boobaa ndox moomu laabul munta laabal kenn mënu koo naan kenn mënu cee togge kenn mënu cee fóot kenn mënu cee jàpp kenn mënu cee sangu farata kenn mënu cee dindi sobe xanaa kay sànni rek wala tuuri mooy jaadu ca ndox moomee kon mbokk yi loolu mooy tënku leçon tey bi kon bépp ndox boo xam ne daal na ko yàlla binde ci caf ko ci xet ci couleur dara soppikuwu ca kooku maa um tahuur la ndox la moo xam ne laab na mën na laabal waaye bi caf ko ga soppikoo wala xet ga wala couleur ga itam du ñu tëb tëb rek àtte ne laab na wala laabul déedéet waaye faw ñu xool la ko soppi lan la bu dee la ko soppi lu laab la te mu doon lu laab loo xam ne càgganteeg doomu aadama dong moo tax mu ànd ak ndox mi comme ay feppi ceeb ak diwlin ak parfum saabu ñu ne dëgg-dëgg ndox mii kat lii ko soppi lu laab la waaye bu ñu sàgganutoon kat bu bu ak farlu amoon kat du ànd ak ndox mi ñu ne kon ndox mii kon laab na de taahir la laab na waaye nag nekkul taxu taxuur muy munta laabal moom daal ku ko bëgg a naan walla nga bëgg def sangu nii rek sangu sangu pour sanse wala nga bëgg cee togg boo ko seexalwul mën nga ko cee def waaye nag boo bëggee jàpp de teggi ko fa boo bëggee sangu farata wala nga bëgg a dindi sobe teggi ko fa bu dee nag lu laab li taqoog ndox mi lu laab li nga xam ni maanaam li jaxasoog ndox mi ba soppi xet gi wala caf ko gi wala wala couleur bi lu laab la waaye nag kenn muntoona def pexe ba tàqalikook ndox mi comme ndoxum géej xorom soosu muy saf wala ndoxum dex wala ndoxum teen léeg-léeg ban boobu cay rax wala ndox mi nga xam ne fa muy daw maanaam yoon wa muy jaar Euh, xëy na yoonu benn miin la miinu or wala miinu aluminium walla yooyu mu yëbbu ca soppi couleur bi wala caf ko gi wala xet bi dañ naa ndox moomu kat soppiku na waaye teewut mën naa sangu farata mën naa jàpp mën naa dindi sobe ndax lan dëgg-dëgg li ko soppi kenn amul pexe kenn munta pexe ba ba tàqalikook moom mbokk yi ndox mi nga xam ne nag sobee ko soppi muy xëy na ginnaaw kër wala ay gaanuwaay wala yu mel noonu ndox moomu moom dëgg-dëgg laabul munta laabal maanaam munuñ cee jëfandikoo munuñ koo jëfandikoo ci togg wala fóot wala sangu munuñ koy jëfandikoo ci jàpp wala sangu farata wala dindi sobe moom daal tuuri rek rekk rek moo ca war kon mbokk yi loolu lañu doon am ci lu ñuy wax ci wàllu ndox mu laab ak ndox mu laabul ñu xàmmee ko bu baax ndax loolu mooy tax nga mën a xam ndox mi mën naa jàpp wala déet ndox moo gis rek bala ngay xam ba xam mën na jàpp wala déet wala mën na sangu farata wala déet xoolal sa bët xool cafka ga xool couleur bi maanaam jëlal sa bët nga testé couleur bi nga jël sa bakkan testé xet gi jël sa làmmiñ testé cafka bi bu ca dara changé ca changement yi leeraloon nga teggi ko fa bu ca dara changé wul nag nga mën koy jëfandikoo ñu ngi leen di ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.